xam ni moom la Sidi job voyager ak manager mu nekk ci business class moy manam condition yu euh, favorable yi nga xamni ne quitté fi ci Dakar ngir jëmale euh, fofu ci euh, Paris ci deuxième image bi nak hôtel bi nga xamni mom la Sidi job logé won ak ki di manageram hôtel bobu di Claridge ji gis détail par détail ak nuité ak li nga xamni lépp luy frais buñu amal fofu ci hôtel bi ngeen koy gis ci document bobé contrairement ak ñi nga xam dañ doon wax ni mom Sidi job dañ ko daal di dalal ci hôtel bi nga xam ne dañu fa dalaloon ay garde rapproché ak sécurité bu Sidiki Diabaté mu mel ne nag ñu bari dañu jàpp ne sénégalais yi nag dañu daal di amal ab acharnement ci Sidi Diop waaye nag kaddu yu bari yu ñuy yëkkati di ko teg ci kawam du dégg ndax nag image yi nekk na preuve parfaite ci condition yi nga xam ni moom Sidi Diop voyagé na ko jóge fii ci Sénégal jëm foofu ca Paris mu mel ne nag staffu Sidi Diop rendir nañ ab plainte ci ab xamante ni nag ab femme daf ab diffamation jëmale ko ci seen artiste boobee di Sidi Diop te wax nañ ne nag cette fois ci dinañ ko topp fu mbaxane doone ab benn lu ci mënti di am Leader 221 dinañ leen ko toppal daal leen koy dëgtal ba mu gën a leer